Euh, tey jii nag bokk yi noo ngi fii ci Touba ci quartier bi nga xam ne moom la ñuy wax Jaalibatul Maraqib di quartier boo xam ne buñ ko waxee xel yëpp dana dem ci Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou waaye xel yëpp dana dem ci bis bi nga xam ne mooy màggalu xaside yi bokk yi li ñu jiital rek saa su ne ginnaaw bu nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Seydina Muhammad salaa salaam njukkal si Ahmadou Bamba ñaanal sëtam bi sëriñ Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te wér. ci barkeb lil muntaxaa awsil bi xayri law mi bu saaratan taxlu du kulli yow mi naw bi jaahil Moustapha mamari wa majalisi wa maskani wa birri bi xaqi wajgal karimi leex firi wa kulli ma alay ani kafiri bokk yi xam ngeen ni màggalu xasida yi mbooloo mi nga xam ni mooy muxaddimatul xidma incha allahu taala di ngeen leen gis noonu ci sunu image ñuy ñëw ci bis bu tedd bii nga xamante ni mboolem ñi yëngu ci xasida yi moo xam di ko durus moo xam di ko jàng njàngam yëkkati moo xam di ko jàng njàngam awu ñooy daje tey jii nag ci kanam sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ bu waaye ci teewaayu xalifa général di murit mu Cheikh Amadou Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wér fas yéene amal bés boo xam ne nag kenn ku ne ni ko amee ci say koñ am ko ci say gox am ko ci say commune am ko ci say dëkk ba am ko ci ay réew nga xam ne tey koñ yi ak commune yi ak dëkk yi yëpp mboolem ñuy def bi si xasida ak sax bitim réew ñoom ñëpp àndandoo nañ tey ñëw fii nga xam ne mooy Touba ci pàkk bu tedd bii nga xamante ni mooy jaalibatal maraqib ci njiitul sëriñ am sëtu mbàkke ak mboolem mbokkam yi mu ko àndal su ma ci day mel ni ni ma ko waxee rek bu ñu tuddee sëriñ Muntaxa tudd nañu yoonu murit yëpp ñu fas yéene ànd na nag tey jii fas yéene jàng alxuraan ak xasida muy bés boo xam ne màggalu xasida yi la ñu fas yéene ko amal fii tey nu ànd ak équipe boo xam ne équipe bu dynamique lay doon ndax ni ma koy waxee rek kon mboolem ñi nga xam ne ñi ngi taataan ak a xaar nañu xam ne incha allahu taala lépp lu fiy xew moo xam njàngum xasida la moo xam njàngum rajas la moo xam njàngum kuréel la moo xam ay waxtaan la moo xam ba ci cérémonie religieuse bi am nga xam ne xel sénal di mulu sëñ Muntaxa ñu ngi koy séentu incha allahu taala dana ci teew loolu lépp di ngeen ko mën a am moo xam youtube bi la moo xam facebook bi la ndax rawatina fii ci Touba nga xam ne gox yu bari tey ñëwaguñu waaye dinañ ko mën a am en direct foofu seen kër ci Touba incha allahu taala kon maa ngi ànd ak Cheikh Mouhamadoul Mourtala Gueye mu ànd ak man ci li nga xam ne mooy caméra bi waaye Serigne Mor la ñu àndal ci régie bi waaye ànd ak Serigne Mourtala Gueye moom it bu soobee Cheikhul Khadim danañ àndandoo ñëw ci liggéey bu tedd bi nga xam ne moom lañ bëgg a defal Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. عندما مريا وفي الأوتان عبادتي ابتدأت بسم الله ووكفاني شوي الملاي وجاد كل الأمد وسكوري للمالك الرحيم وسكوري زكى رحيم بالنبي رجيمي وآله وسبي نجومي بالله فعلا xéewali wa xayru muqatal bila tanawuli billahi faaraqu nasara jeewali Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi teewlu seen télévision ma fatul Bichri te mu collaborante ak euh, Tawfekh Production ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, xam ngeen ni ba tey niñ leen ko wax wan noo ngi fii ci jaalibatul maraqib ci bis bi nga xamante ne mooy màggalu xasida yi fas yéene nag lépp loo xam ne dana fi xew ñu fas yéene ba xamale leen ak moom incha allah taala sëñ bi foo jóge ak noo tudd waaw maa ngi jógee Ndakaaru maa ngi tudd Ngalla Mbaye nga gëm a xam si Ngalla Saliou taalibe sëñ Basuloo Alaram waaw ñëw tey fii si bés bi nga xam ne maam sëñ am sa moom la jaglal xasida yi ndax eh, yàlla daf ñoo def ñu bokk si mbooloom Kënzul Muxtadin mbooloo mi nga xam ne tey mën nañ ne fépp fu bésu am si àdduna rek si mbooloo lañ ko lañ ko jëlee ndax bañ demee sëñ saalu Mbacke ba mu wax ni ah, bés bu nekk dégg naa ko fi waaye bésu xas yéen a ma ko njëkk a wax kon bés boobu tey moo moo jur lii nii nii eh, sëñ am sa Mbacke di ñëpp xam ko si xasida yi ñëpp xam ni Sëriñ Tuubaa gu sotti la di ko ñaanal suñu borom may ko gudd fan may ko wér ba lii mu yàgg koo taxawee ànd ko mbooloom xidma ànd ko mbooloom Kanzul Muhtadin ñu yàgg ko teewee eh, làq si ngërëmu Serigne Touba ndax benn xasida gu ñu jàng fi rek maanaam dina mën na may jàmm si réew mi yàlla nag li fiy lamb si ah, ah, xasida ak alxuraan yàlla daal ni ko suñu borom fayal Serigne Touba waaw sëñ tawaafu man alayya ankara indal ilaahi wan nabi lan yuskara إلى سواي كل من لم يوني ولي سوى الله العلي المكون نظى لغيري كل من تكبر باخر باني بمزايا الكبرى إلى سواي ولخير المنتقى من لا يحبني ويلقى متقى لغير ربي ولخير المنتجب يساق من زهد فيه واحتجب